mbokk yi nag tey dañoo bëgg a ñëw ak yéen ci benn information euh, yéen ñi nga xam ne yeneen sunu mbokk internautes yi dañoo bëgg a ñëw ak yéen ci benn information euh, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Bawal Info TV maa ngi leen di nuyu yéen ñi nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi nag image yi nga xam ne moom ngeen gis ñi ngeen jàkkaar lool ci photo bi nii dañoo bëgg a ñëw indi leen kenn par kenn ku ne ñu indi leen photoom présenté leen ko doog leen jox nag information bi nga xam ne bëgg nañ ko leeralal sunu mbokk internautes yi kii ñu leen njëkk a wan nii mooy ba jatara Euh, ndax tey liñ bëgg a wax ci lu jëm ci mbirum sport bu senegal la ndax député Cheikh Thioro Mbacké mii ngeen jàkkaarlool ci image bi dafa sàkku ci ministre de spoor bu bees bi di Khady Diène gay pour mu indil askanu Sénégal ay leeral ci xaalisu Sénégal bi nga xam ne jëfandikoo nañ ko ci coupe du monde mille vingt deux ak coupe d'Afrique deux mille vingt trois loolu ñuy wax question écrite ndax député yi maanaam ñoom dañoo am sañ-sañ di bind ay ministre wala ay ministère di leen laaj lépp loo xam ne njort nañu ne war nañu ko leeralal askan bi comme ay jamono am na ministre yoo xam ne doon nañu sàkku ñu leeral xaalisu DER financement yi ak seen ñoom par exemple léegi nag député bii di député Cheikh Thioro Mbacké bokk ci Pastef dafa bind question écrite ministre des sports bu bees bii di Khady Diène léegi moo tax ñu bëgg ñëw ak yéen benn benn leen ko ba ngeen comprendre mbir mi ndax ñépp xam nañ ne lu jëm ci wàllum tàggat yaram ci coupe d'Afrique wala coupe du monde ay milliards yi lañ ci dugal ñu bari nag seen xel dafay teey ne est-ce que milliards yi jëfandikoo nañ ko ak nan lañ ko jëfandikoo am na leeraange transparence wala amul trans transparence euh, kii ngeen gis nii nag mooy Yankhoba Diattara mii dafa nekkoon ministre des sports deux mille vingt deux maanaam coupe du monde deux mille vingt deux Yankhoba Diattara moo nekkoon ministre des sports dinañu ci dikk. kii ngeen jàkkaarlool ci image bi nii di Lat Diop moom tim nekkoon na ministre des sports coupe d'Afrique 2023 fekk na Lat Diop mooy ministre des sports kii ngeen jàkkaarlool nii ci image bi mooy Augustin Senghor mooy jiite fédération sénégalaise bu football keneen kii mooy Mamadou ngoom ñaa nekk daas bu ministère ministère des ndax ministère bu ngeen gis wala direction bu ngeen gis daas bi daf ci am solo lépp lu jëm ci wàllum xaalis kenn mënu ko tudd te doo tudd daas bi léegi dinañ ci dikk keneen kii ngeen jàkkaarlool nii nag mooy député Cheikh coro Mbacké mi nga xam ne moom moo def question écrite bi adressé ko ministre des sports bu bees bi ngeen jàkkaar lool di Khady Diène Gaye léegi nag euh, Cheikh Thioro Mbacké li bëgg li muy sàkku mooy xaalis bi nga xamante ni tey moom lañ débloqué woon ci coupe du monde deux mille vingt deux ak coupe d' afrique deux mille vingt xaalis boobu ñaata la ak nan lañ ko jëfandikoo ndax coupe d' ndax coupe du monde deux mille vingt deux Sénégal dafa teel a toog Angleterre moo éliminé Sénégal coupe d' afrique tamit mille vingt trois Sénégal teel a toog ci huitième de finale yi. Côte d'Ivoire éliminé Sénégal léegi nag ci coupe du monde moom deux mille vingt deux lii ma leen di wax moom man maa ko ci yokk ndax coupe du monde deux mille vingt deux bi Yankhoba Diattara nekkee ministre des sports dafa waxoon ne état bu Sénégal dafa fas yéenee débloqué maanaam génne lu toll ci quatorze milliards. pour coupe du monde deux mille vingt deux ak délégation boo xam ne toll na ci trois cent vingt sept personnes te xam ngeen ne coupe du monde deux mille vingt deux Sénégal dafa teel a toog ci huitième de finale yi euh, Angleterre éliminer Sénégal ministre bi waxoon ne quatorze milliards comme Sénégal dafa teel a toog ñaata lañ jot a jëfandikoo ak ñaata moo des ci xaalis boobu. léegi nag euh, kii nga xam ne nag mooy Khady Diène Gaye mii nga xam ne moom lañu adressé question écrite bi moom moo tax li ñuy wax yàlla du nit moom ministre des sports bii dafa nekkoon ci ministère des sports bi ba Diattara ñëwee dañ ko fa jële yóbbu ko Kaolack jamono jooju nag am na benn journal bu bindoon ne Khady Diène Gaye mii li tax ñu jële ko ci ministère bi yóbbu ko Kaolack li mu bokk ci cadre Pastef yi moo tax léegi nag àdduna di dox àdduna di dox mooy mooy liñ naan àdduna dafa guddi tànk gudd tànk ba tey Khady Diène Gaye moomu ñëw jiite ministère bi ñu adressé ko ab question écrite ma ngi mel ni rek DER ndax DER délégation à l'entrepreneuriat rapide euh, maa ngi génn gam tuuti euh, mais dinaa ñëwaat ci euh, ci ministère des sports ak question écrite bi mais dama bëgg a joxe exemple pour wan leen na leen yàlla du nit Pape du Sarr bi jiite jiitee ay Aïda Mbodj nekk député Aïda Mbodj dafa sàkk woon ci coordonnateur u DER pour list bénéficiaires yi maanaam mu doon sàkku ñu saytu financement DER yi Pape Amadou Sarr jamono jooju mu lànkoon àddunay dox ba DER googu Aïda Mbodj jiite ko tey lépp luñ ko so bañoon a jox ni document Aïda Mbodj document yaa ngi ci kaw taabalam ma ngi mel ni Ousmane Sonko ak rapport Prodac biñ ko doon làq dem na ba rapport Prodac bi nee na ma ngi ci taabalam moo tax àdduna dafa gudd tànk te dafa jara sóoraal léegi nag nan lañ jëfandikoo ñaata lañ dugal ci coupe du monde deux mille vingt deux ak coupe d'Afrique deux mille vingt trois ñaata lañ si dugal ci ay milliards ak yan question la député bi laaj ki nga xam ne tey mooy ministre des sports ndax nag ñi nga xam ne ñoom lañ dégg réew mi ñoom li ñu woote mooy jub jubal jubbanti question yii la député bi laaj su ngeen déggee sànq ma tudd dash bi Mamadou Ngom ñaam mii tudd nañ ko sax ci xaalisu Covid 19 bi ci ministère des sports su ngeen gisee ministère yi même Covid 19 bi daas yu baree baree bari convoqué nañ leen ba déglu leen ndax xaalisu ministère yi lu ci bari day aw ci loxoy daas bi wala ci loxol daas bi la xaalis bi jaar moo tax képp ku sàkku ministère ñu leeral xaalis ba dash bi moom mënu si ñàkk am part de responsabilité euh, même sax député bi di Cheikh Thioro mënoon na see waale maanaam réfection stade yi ndax réfection stade yi ay milliards yi milliards yi milliards la xaj na danañ ci ñëw léegi nag première question bi mooy bi député bi laaj ministre bi mooy ñaata ci xaalis moom lañ dépensé ci coupe du monde deux mille vingt deux ak coupe d'Afrique deux mille vingt ñaareelu laaj bi mooy ñaata ci xaalis lañu jox joueurs yi équipe A bi ñaata lañ leen jox ci prime maanaam équipe A bi xaalis biñu leen jox ci ay prime ñaata la ñetteelu laaj bi mooy ñi nga xam ne ñooy staff bi ak officiel yi prime yi ñu jox ñaata la ci xaalis ñeenteelu laaj bi mooy ndax am na ab bilan financier boo xam ne bu disponible bu fédération sénégalaise bu football maanaam ndax am na ab bilan boo xam ne fédération sénégalaise bu football def na ko ci xaalis bi nga xam ne jëfandikoo nañ ko ci coupe du monde deux mille vingt deux ak coupe d' afrique deux mille juróomeelu laaj bi mooy ndax man nga ndax assemblée nationale mën na ñoo jot ci ay document yuy wane ne xaalis bi nga xam ne def nañ ko ci coupe du monde deux mille vingt deux ak coupe d' afrique deux mille vingt deux yorin wi leer na lii mooy laaj yi nga xam ne laaj nañ ko ministre bi ñu dénk wàllum wàllum tàggat yaram lii nag dafa nekk loo xam ne sénégalais yi bëgg nañu koo xam ndax ministère des sports euh, coupe d' bu ñëw wala coupe du monde bu ñëw di ngeen dégg ñuy wax mbirum pirim ci staff bi ak yeneen ak yeneen kon laaj yi daal mooy laaj yi nga xam ne laaj nañu ko pour Yankhoba Diattara mii nga xam ne nekkoon ministre des sports Lat Diop mii nga xam ne nekkoon ministre des sport Augustin Senghor mii nga xam ne mooy jiite fédération sénégal bu football ak kii di daasu ministère des sports ñaata lañ financé ci xaalis xaalis bi ñaat nan lañ ko jëfandikoo ndax nañ ko jëfandikoo ndax leer na ndax jaar na yoon loolu lépp ministre bi miñ dénk wàllum sport amul sañ-sañ di bañ a tontu ci laaj yi amu ci sañ-sañ kon obligation la te Sénégal yi aussi bëgg nañoo xam xaalis boobu ndax ñu bari njortu nañu ne coupe d'Afrique ak ay coupe du monde am na ñu bari ñoo xam ne yóbbu gi ñu leen di yóbbu ak hôtel yi ñu leen di dalal ñaata lañ fay si hôtel yi lekk gi ñaata la prime yi ñaata la délégation bi ñan ak ñan lañ yooyu yépp Sénégal yi dañ koy dañ koy bëgg a xam te kero dégg ngeen premier ministre nee na am na soixante structures yoo xam ne ñoo ngi koy audité